bon déjà euh, sama gars yi j'espère que yéen ñëpp ñu ngi ci jàmm en fait dama bëgg mu leer quoi tu vois ce genre de choses là c'est pas nous euh, ok c'est que ça Médina ok c'est pas nous exactement tu vois voilà c'est pas les c'est la Médina qui font des trucs des trucs comme ça tu vois ça c'est boo leen xoolee affaire yi bu baax tu vois ay boy ngeen di gis c'est juste des petits fait ay boy ay boy tu vois après les gens vont dire que ici que ouais waa non. waaw maintenant ni ko réew non lii c'est juste c'est des boys en fait parce que ñun man maa ngi nii tu vois je suis chez moi d'autres gens sont chez eux ah lii seen parents yi en fait ñoo war a wax ak ñoom quoi xoolal xoolal booy xoolal booy booy ay booy yu ndaw ay booy yu ndaw ñooy nekk fii c'est sûr que ñii booy tey ñii ils ont ils ont ay vingt deux ans ay vingt ans vingt trois wala moo si gën gaaw gaaw ils font ce genre de choses là bi nga ko defee tey taal nii policier bi ñëwee ñu daw amu benn sens regardez ce qu'ils font regardez ce qu'ils font waaw c'est pas dama bëgg mu leer maa suba gars yi bu ñu di wax ay waaw waa naa dañoo réew non c'est pa c'est pas waa Médina ñëpp en parce que yeneen nit yi ñëpp ñu ngi seen kër toog cool mais regardez ce qu'ils font et c'est des enfants tey bu ma gisoon man sama doom daf yi wallaahi damay mbaj ndeyam maa nga waxoon damay non damay mbaj dem damay mbaj wala ma rey damay dama koy rey dama koy rey dama koy rey wala sama rak dama koy rey mu dee carrément voilà faut faut faut vraiment mu leer si kan si nopp gars yi quoi tu vois ok c'est c'est pas nous les grands de la Médina ça c'est les petits ay boy yu ndaw inconscient ok lu couvre-feu on l'a fait d'accord c'est pas normal d'accord mais c'est pas comme ça qu'on doit faire les choses quoi voilà balaa balaa suba gars yi wax waaw waa Medina dañoo réew voilà man maa nii Medina laa dëkk fii laa nekk depuis bu ma amee quatre Medina laa nekk fii laa màggee voilà et moi pas ce genre de si si on parle de Boy Medina moi je vrai Boy Medina tu donc du lii quoi en fait du lii. c'est des petits qui sont là, qui sont en train de, de faire des, des, des, conneries de ce genre-là. Hein? Ni sen sen wa galé bu bu sen papa sen ya sax yëguñu yëguñu sax lu xew. Regardez. inconscients en fait ils sont inconscients qu'en ce moment tu vois c'est vrai que instant en moment corona bi. naar la. non booy dañuy réew. mais duñ ko nangu. non lii lii ça se fait pas mère. mais lii dafa non mais ok même bu fekkee tey couvre mooy loolu ça se pa pas c'est pas comme ça on doit faire les choses. Dakar va sortir. non c'est pas comme ça en fait. man fii fii xool ñii xool ay xale ñëpp ay góor ñi boo mënut a amuñu sax vingt deux ans amuñu vingt trois ans. xoolal kooku kay da nga de mais lii ça doit pas di waru am. peut être nag gars yow suba dam def benn marche le matin le matin le ñëpp sol masque. ñu sol ay masque. ñun ñëpp sol ay masque. moo gën. xam nga gis nga sol masque naan laa gis xanaa feebar bi gudd lay génne. mais loolu xam na man tey si biir lool amul sens quoi xam nga. nan exemple tey exemple c'est vrai que couvre-feu tey boo demee marché Sandaga da ngay fekk foofu yëpp day fes journée bi. day fes dell. journée bi. marché Sandaga day fees dell mais lii sa se pa pas. booy yi nii nii nii nii xoolal booy yi j'en suis sûr que seen seen seen seen waa gàlle kenn xamul. li ñuy def lii li ñuy def lii. benn parent bu gisee que papam. premier jour rek lañ koy def dootuñu ko def gën ñun Medina la ñu dëkk quoi mais on cautionne pas ce ce genre de choses quoi voilà ñun fii la ñu màggee fii la ñu yaroo fii la ñu fii la ñu defee lépp quoi tu mais ce genre de choses là nous on cautionne on cautionne pas ça c'est des petits ñi ils sont inconscients ils sont inconscients ils sont vraiment inconscients fee ba cat ba cat gars yi dañoo taal xool ba ba si rue rue 31 rue 23 rue 19 bi rue 17 euh, euh, euh, ak ak rue ak rue 9 même bien ba mu fee rue 57 gars yi taal en tout c'est pour mu leer si c'est pas nous quoi c'est la jeunesse quoi c'est pas nous quoi C'est vrai qu'aujourd'hui, le couvre-feu, là, ça n'a pas de sens réellement pour dire, parce que tu es bon demain marché sans dégâts, d'ailleurs, fait 200 000 personnes, ne peuvent ils dorment sans, sans le masque, tu vois. Tu pars au resto, tu vois des gens qui sont sans masque. C'est vrai que ça n'a pas de sens, mais c'est pas comme ça on fait les choses, quoi. Moi, je suis plus, tu vois, marche, def marche, dem, casse l'eau, quoi. Ok, le mieux pour def marche, mieux pour gagner Dakar. tu dem toog quoi fenn peut être gars yi ne tey benn 18 heures ñëppay daje fii ñëpp toog foofu noonu ba ay 2 heures 3 heures du matin je suis d' accord avec un truc comme ça mais pas avec des trucs comme ça c' ça en fait. xool xool xool xool comme moom tamit jël na xeer sànni jël na xeer sànni jël na xeer sànni. te tey la moo concilié des i booy taal gars yi taal gars yi taal euh, ay affaire yi nii suba yaay dool war jaas tali bi mu am lii putain voilà ils sont inconscients c'est des jeunes super inconscients en fait inconscients man sama doom bon sama gars yi man maa ngi coupé c'était juste pour war leen que c'est pas nous quoi xam nga du c'est les jeunes quoi tu vois c'est pas nous donc ngeen euh, dund confinement yi bu baax quoi waaw courage quoi sol leen seen masque ba di génn quoi le matin y a beaucoup de morts en ce moment gars yi ils ne disent pas vraiment y a beaucoup de morts en ce moment quoi donc protégez-vous incha piis waay sama gars yi ngeen dund gudd gudd guddi gudd quoi ma maa leen dem sama appel vidéo bye